tey jii dañoo am euh, ay euh, kii asamba boy yu nga xamante ni ñoo fi ñëw wàcc euh, ci pharmacie bi bi ñu ñëwee li ñu ci gën a jaaxal nag mooy dafa courant dafa coupé même pas une minute ñoom ñu attaqué ñoom ñu attaque pharmacie bi bi ñu dikkee ñu ngi yor seen i pistolet commencé di tirer seen arme à lañ commencé di tirer ak seen i coupe-coupe lañ yor bi ñu dikkee ñu tirer ci pharmacie bi ci vitre yi toj ñu dugg ci biir bi ñu duggee ci biir ci lañ jël xaalis bi fi nekk commencé tamit di tiire am na benn gaañ bu nekkoon ci biir bu daawoon doon daw di génn ci xool lan la ci lañ ko dóor jaay mooy jaay kenn nekkoon ci biir fan ci lañ mujjee daw dugg ci biir jël xaalis bi commencé foofu di tiire continuer di dem waaw ah, muy nekk mu nekk lu nga xamante ni wax dëgg yàlla insécurité totale la fii ci Thiénaba parce que du guleet def ko fi yoon yoon ñu ni su pharmacie jëniñ ko ay yoon dajji fi banque bi boutique yi fi nekk tamit laa nosul dañu waaw ba tey pour le moment mënaguñu mënaguñu wax ni ne xàmmee nañ fii ci zone la cas mais en tout cas li ñu li ñu li ñu exception bi ñu am daal mooy sorewuñu parce que tey ñoom li ñu def courant coupé même pas une minute cest euh, fii fi ñu nekk pharmacie bi nekk moom moo tax ñu ñu tiit nañ suñu bopp lool ba tax na bu ñu amoon poste gendarmerie ah loolu dina dina dina dina mën a leer loolu moom moo ñu xaw a parce que une minute courant dafa coupé même pas une minute ñu attaqué ñëw daal di dóor benn bal ci ci vitres yi vitres yi wàcc ñu commencé dugg ci biir seen i coupe coupe di dóor dóor fi yàq ordinateur yi yëpp jël xaalis bi dem seen yoon yaakaar naa loolu lu metti la ci population Thiénaba lu metti la ci nga xam ne docteur Diallo mi nga xam te ni moom moo moom moo yor pharmacie bi. waaw gaañu gaañu bi bon garaawut noonu parce que maanaam euh, ko dóor jaasi lañ ko dóor ci loxo ba mu defal ko premier soins yi mais après ñu koy jéem a xool noonu lañ koy ciyee ba ba ba ba yóbbu ko hôpital mu ngi xool gendarmerie lañ fa bàyyi ak waa ñuy xool waa sapeur ñuy xool nu nu nu dégâts yi di kii. waa évalué guñ ko parce que di waxee bi ñu laajee ñaata ñaata moo fi ne xaar dañu moom nekk foon jaaykat ñëf jaaykat tamit dañu ñoom hmm. xam naa sûrement ñu defee kees dinañ xam ñaata la exactement mais moment bi moom defaguñu parce que dañoo gendarmerie ñoo xool def eh, seen enquête di jël si jël seen i photo affaire yooyu di xool nan la seen bi demee woon moo taxoon mënuñu woon a dem def situation mais après dañuy wax ni bu defee situation dañu xam ñaata la li ca xaalis Euh, appel bi ñu lancé autorité yi mooy Thiénaba euh, dëkku diine la bu mag a mag ci réewu Sénégal dëkk la bu nga xamante ni day màgg màgg woo xamante ni macha allah jéggi na dayoo kon il est temps que ñu am maanaam poste gendarmerie dafa war am parce que cérémonie religieuse yi fay am du benn du ñaar waxuma la gàmm gi mais dafa war yeneen cérémonie yi am ci biir dëkk bi ndax dëkku diine la si dëkk bi yaatu na yaatu boo xamante ni macha allah population bi kii lañ kon Thiénaba dafa war a am poste gendarmerie loolu la ñuy laaj autorité ak yéen ko ñaan en commençant par le sous-préfet le le préfet le gouverneur le ministre de l'intérieur ñun ñëpp ñu ngi leen di wax ni ah Thiénaba vraiment dafa soxla poste gendarmerie parce que lii nii du du guleet yàgg na fi. yàgg na fee am kon nag li ko mën a saafara mooy ñu am sécurité ñu am genre gendarmerie suñu wet bu ko defee bu lii amee ñu muy parce que bi ñu wootee waa gendarmerie laata ñoo ñëw fekk na ñoom ñëpp ñu dem kon yaakaar naa bu doon dafa nekk suñu wet ah, ñu ñoom bu ñu déggee bale que ñu woole si ñoom dinañ ñëw jéem a agsi mën leen a jé a jéem a fexe nañ leen daal la ñuy ñaan autorité yi ñu defal na poste de gendarmerie yi kii man mii wax ak yéen dama may le président conseil communal de la jeunesse bu Thiénaba kon jeunesse bi yëpp ñu ngi taxaw ah di xaar loolu fii ci gouvernement bi autorité yi pour ñu jàppale ñu defal ñu poste gendarmerie foofu parce que mooy suñu sécurité ngir ñu mën a liggéey parce que kenn mënatul liggéey kenn mënatul def dara parce que loo def rek jàpp nga ni boo paree sàmbaabu lañ fi jaar jël ko yóbbu ko kon yaakaar naa loolu tamit am na leen lu muy wàññi ci dëkk bi.